Assalamu alaikum, noum len dini, dilen ziyad, dilen beye, bwa bwa bwa Noum begon nou wak tan nge yon, dek ki Senegal Noum yako, ti walo enzesis, ti walo nipotizmo Ti walo empunite Binan hamentini, makisale defo falo be legi Senegal legi, defo am nyari Senegal Am nyari Senegal Mwoy Senegal, binan hamentini ñoom Macky Sall lañ féeteel ak sénégalais gi nga xamante ni Macky Sall la àndal donc sénégalais bi nga xamante ni moom dafa ànd ak Macky Sall ak senegal gi nga xam ne màkki Sall la àndal kooku mën naa def lu ko neex dara du ko ci fekk moo xam crime la moo xam délit la ak nu mu mënta toll. dara dara dara dara du ko ci fekk té lolu sénégalais yi dem nañ ba xamné lolu deug la ba bu ku far ci Macky Sall sax bu waxé ay wax yu doy waar yu jéggi dayo wala mu def crime wala mu def délit da ngay dégg sénégalais yu bari né non ah du mujj fenn du mujj fenn du mujj fenn bobu nak dem na ba nek deug parce que président bi dafa diviser sénégalais yi dafa ñëw jël Sénégal daf ko ñaari xaaj moy comme ni ma ko waxé sank sénégalais bi nga xamné dafa and ak mom quel que soit ay erreuram quel que soit ay défaut mom liko concerné ak liko intéressé mooy Macky Sall moy le président de la République nu manti mel lu manti def man neex parce que c'est lui qui nomme à tous les postes civils et militaires moo yoré caisse noire bi moo yoré ngour gi moo yore entre guillemets doole ji doole bi nga xam ne si éphémère parce que benn doomi aadama bi dund ci kaw suuf amul doole yàlla rek moo am doole képp ku wax ne da am doole yaa ngi fen te soo demee ba ñàkk sa doole jooju ngay wax ne am nga ko si ngay xamee ne dañ doon fen képp ku taxaw tamit di la jay naan la da yore nguur da ngaa amee doole yaa ëpp gaay yi doole doo moroomu gaay yi daf lay jay te fenkat bu mag la te loolu nag. moo yàq suñu réew ma mooy ay doomi aadama yoo xam ne seen intérêt rek moo leen intéressé na sénégalais yi dee na sénégalais yi feebar duñ faju na sénégalais yi nekk ci inondation bi na sénégalais yi ñàkk ndox na sénégalais yi ñàkk courant na sénégalais yi seen doom yi bañ a jàng sénégalais yi seen doom yi di dugg gaal di dee ci géej gi seen yoon nekku ci na jigéen ñi di accoucher ci ay charrette di dee na Sénégal bañ am ay hôpitaux yu baax diñ de son nom seen yoon nekku ci lenn rek moo leen intéressé mooy seen intérêt crypto personnel léegi nag sénégalais boobu moom lu manti xew moom yoonam nekku ci léegi nag beneen sénégalais bi nag mooy ki nga xam ne mooy suñu classe gi ñun nga xam ne ñoom alalu àdduna nekkut loo xam ne daf leen a intéressé parce que kullu nafsin zaa'iqatul mawt minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nuxrijukum taratan ukhra lu mu yàgg-yàgg dañuy dee ñun loolu lañ gëm dee gi nag aajowul ci sax ay at parce que liir judd na dee nit judd na am 5 ans dee nit judd na am 10 ans dee nit judd na am 30 ans quarante ans cinquante ans soixante soixante dix quatre vingt ba cent am na sax ñu juddu am cent vingt cinq ans kon dee moom aajuwul ci at nit suul na doomam nit suul na jabaram nit suul na jarbaatam nit dem na bàyyi fi baayam ba baayam am téeméeri at soog kaa fekk nit dem na bàyyi fi ndeyam ba ndeyam am téeméeri at soog kaa fekki moo tax ñu ne xul innal mawta allazi tafiruuna minhum fa innahu mulaaqikum déegi moom dañuy dajeeg moom ci mbedd mi à tout tout tout tout moment mën na nekk ci accident mën na nekk ci feebar mën na nekk malaise nu ne lay ñëwee nit dina romb nit léegi nii nuyu ko sax deux heures de temps ñu tàggee ko na ko génn na àdduna ñun nag loolu lañuy ñuy dund ñun moo tax ay alalu àdduna ça nous intéresse xam nga man sama classe gii nii lan moo tax ñu gis seen bopp ci Ousmane Sonko ba pare nekk bañkat te Ousmane Sonko daf leen cay fekk si xëñ na avant Ousmane Sonko di nekk candidat di porter projet bii nii mu porter fekk nañu ci ñun ndax yàgg nañ nekk ci combat yu bëri combat wu démocratie combat wu liberté combat wu bonne gouvernance combat wu transparence combat wu Sénégal gi nga xamanteni ñun ñëpp ko bokk am égalité ñun lool mo ñu intéressé moy le peuple ak le Sénégal l'intérêt du Sénégal mais pas ñun suñu intérêt personnel motax nañ ñun di and ak Macky Sall jomb nañ di gis Macky Sall di def yenn ñu koy cautionner suñu dérèt dérèt gor mo ci daw mais am ño xamné xam rek lañ gis pour ñom aduna manam day continuer rien n'est éternel dans ce monde amul dara luy continuer te gis nga alalu aduna yi surtout alal gi nga xamanteni c'est l'argent du contribuable ñu la koy jox mo gëna bon moo tax na fi butunihim naran. ku koy lekk rek sa biir safara mo ci nekk waye nak Sénégal dafa nekk dëkk bo xamné chaque euh, personne presque à un prix Abdoulaye wad moko daan wax waye du ñëpp de ñu doon gore ba léegi ñuy gore ah mais xëy na dafa bëree tut dafa am ñoo xamante ni pour ñoom àdduna alal kase la l'argent ne fait pas le bonheur gis nga ngor dafa baax te bala nga kaa xam rek mooy nga garder sa dignité ñeme dëgg fépp fu dëgg bi nekk lu mu métti métti nga taxaw pour wax ko ak lu la ci manti fekk bés boo demee ba jógee fi wala lolou nga xex xeex fi ci ngay xamé né garder sa ngor ak sa dignité dafa bax amna ay nit ñoo xamné tay sénégal jaay nañ sen ngor kenn respecté wu leen ñu leen di saaga ci internet bi sen njaboot di dégg bu ñu tey oote woon mbooloo duñ gis sax 100 personnes yu mat kenn wu leen kenn du wax ba jël ci ñom exemple té pourtant am nañ alal am ay kër yu rafet am nañ compte bancaire yu fess dell am nañ ay moyens am nañ ay privilèges ci ngour am ay avantages waye ñom ci instant bobu rek lañuy ñuy gis nañ ne lool yëpp day jeex comme lu yalla di wax na kullu man alayha fanin waye man lima gëm man moy man dama war nek nekk toujours ci côté peuple bi di défendre le peuple di défendre les intérêts de la république les intérêts du Sénégal la république mooy lu république bokk waaye Macky Sall mi nga xamante comme li Idrissa Seck waxoon il a tous les défauts de Wade mais aucune de ses qualités Ablaye Wade moo waxoon ne chaque Sénégalais a un prix waaye nag bi muy wax loolu waroon na wax un am ñoo parce que chaque règle a une exception te Sénégalais yi xam nañ léegi Macky nag ci loolu la ne moom bi mu ñëwee ginnaaw bi mu nekkee candidat gëmloo sénégalais yi ne moom bu ñëwee day indi rupture maanaam li fi amoon ca Senghor abdu juuf ba ci Abdoulaye Wade te am ay nit ñu bari ñu taxoon tey di ko xeex am ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan am ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen liggéey seen kër tas ñu yàq seen àdduna tey jii boo jëlee Mamadou Dia Senghor ji na ko fi coup 1962 tëj ko yak adunaam yak daram am ay nit yu taxaw ño xamne ne nañ ay kilifa diina lañ ci jamono jooju jàppale Senghor ñu sacrifier Mamadou diam mi nga xamanteni tay tey na ko amoon tay suñu départ comme président de la république jàpp naa ne Sénégal dépassé na fi Cheikh Anta Diop même chose xex nañ ko borom xam-xam bu mag bu nek un savant Afrique di ko aduna bi di ko mu nek doomi Sénégal ñu sàgg ko ba dé te jëriñul Sénégal dara ci xam-xam boobu noonu nga xam ne am na ko te lu nekk mu ngi ko doon wax li xew nii sax mu ngi ko daan wax ñoom Omar de Diop ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni Sénégal baax moo tax ñu génn àdduna Macky Sall nag bi mu ñëwee ginnaaw bi mu dundee injustice moom <laughs> entre guillemets injustice parce que lu ne mën na cee xew ah mën naa am sax lu nit ñi di wax sax ne moo ko jotale ak Ablaye Wade sax xëy na au fond mën na bañ a nekk dëgg parce que li ñuy wan ne mën na bañ a nekk dëgg mooy léegi ñi nga xam ne ñoom ñoo ko doon xeex ñëpp tey retrouver wu nañ ñëw di siège ci conseil des ministre am waaye nag yàlla rek moo xam su fekkee nag sénégalais yi lañ jàppee ay sagar jàppee leen ay mbaam di combine di comploter ci doogu sénégalais yi. loolu seen affaire la lu mu yàgg-yàgg dinañ ko gis ndax ak sénégalais yi dina leen dal léegi Macky Sall boobu noonu ñëwoon di haute rupture wane na lu fi amoon dootu fi amati moo ñëw nag gën yàq Sénégal yàq jikko yi indi Sénégal loo xamante ni masul am ci réew mi indi fi affaire politique ethnicisme

jël xaalis bi nga xamne moy mooy xaalisu sénégalais yi sénégalais yi nga xamne ne dañoo sonn lool waroon ci tabax ay hôpitaux yu bax ñu am un bon plateau médical waroon am ay tali yu bax a baax a am ay écoles yu bax mo xam école primaire mo xam collège lycée ba ci université yu mucc ayib ndox c'est source de la vie tey jii boo demee ci capital sénégalaise bi di dakaar nga dem Parcelles Assainies jam ba Géejawaay ci banlieue bi di nga gis ne fan yi yéen a ngi gis bu ñu ubbee seen robinet yi ndoxu foos moo ciy génn en tant capitalu Sénégal sax amul ndox eau potable ndox mu nit ñi mën a naan tey ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne. réew daf ko war a am pour nit ñi mën a dund dund gu teey yooyu yëpp amul xaalis boobu nag lay jël moom di ko foowee di ko pasar pasare di ci jënd ay nit pour moom intérêt personnel am moom président de la république mais pas pour l'intérêt du Sénégal wala l'intérêt des Sénégalais ñëwal ànd ak man ma jox la ay millions demal def lu bon opposition bi wala keneen ko xamne def ma contre ma jox la ay millions te millions yooyu ma lay jox c'est l'argent du contribuable même caisse noire bi nga xamante ni moom la ñuy jël di ko layee ne kenn du ko contrôler moo xam ñu tuddee ko fonds politique wala leneen lu mënti doon c'est l'argent du contribuable sénégalais yi ñoo koy jël dajale ko ci seen ñaq ku jënd saako ceeb ci boutique bi ku jëndal sa doom tàngal ku jënd carte crédit ku dem jëndi marchandise ci sous région bi ak ci front euh, foo manti jógee ci pays frontalières yi wala Europe wala Amérique wala fu mënti doon boo ñëwee yore bagage danga koy dédouané dugal ci keesu nguur gi ñuy liggéey am salaire ñu ngi leen di dagg impôt sur le salaire entreprise yi ñu ngi fay impôt ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen xaalis boobu yëpp ñu jël ko dajale ko def jox ko ci caisse noire jox ko ci ay budget mu fal ay nitam ay ministre am ay directeurs généraux yam ñoom ñëpp ñu jël xaalis boobu di ko pasar pasare di yàq ministre yi di def ay détournement corps de contrôle yi di leen épingler te du mujj fen <coughs> ngeen baal ma directeurs généraux yi même chose dégg ngeen kaawu poste bi poste moom dañ ko jël cëxat cëxatee ko yàq ko ku ñëw sàcc dem xaalis boobu tey Macky Sall da ko jël muy alalu sénégalais yi mu waroon dem ci sénégalais yi mu jël ko yemale ko ci boppam ak ñi mu àndal képp koo xam ne pare nga pour ànd ak moom dina la fal jox jox la ndomba tànk nga am ay avantages di bénéficier wu ci xaalisu sénégalais yi di détourner soo defee détournement de deniers publics Macky daf lay sax promouvoir daf la yëkkati ba ci kaw wan la na la yow yaa gën a baax soo ko contré yow dafoo dara mosoo sàcc xaalisu Sénégal soo def crime mosoo def benn délit yow délit bi ñuy jàpp ne yow moom nga def wala crime bu ñu jàpp ne moom nga def mooy da nga contre Macky Sall su boobaa nag danañ def lu tout pour yàq sa der tëj la ci kaso bi di def répression sa kaw. yàqate la pour nga yàqu yow parce que yow tout simplement ànd ak moom ci réew bu ñu wax ne c' est un pays de démocratie un pays démocratique ku nekk am droit ne man àndumaat kii kii lay àndal ñu waroon dund lool ci jàmm ku nekk respecter sa croyance morom ku nekk respecter sa euh, appartenance politique morom ak sa liberté morom ci ne man parti bi moo ma neex fa far wala je suis apolitique wala anduma ki ki kii doy mom lay àndal wala moi, président malgré mais def na li dama koy critiquer parce que anduma ci c'est ça la démocratie c'est ça la république c'est ça un état de droit mais malheureusement Macky Sall dafa ñëw yàq Sénégal yàq état bu Sénégal yàq les institutions sénégalaises démasqué ay nit ñu bëri ndax alalu aduna te alal joju su nekkoon alalam la sax mu neex waye dafa metti ci xol Sénégalais yi jël sen alal jox la ko nga kay fowé jël nguur gi daf ko sa yëfu bop yow sa jabar say doom say goro ñi nga ñeneen sénégalais yu andut ak yow nga bedd leen sanni leen feulé ba paré nak jël ci ñenn ñi nga xamné dañoo and ak yow te nangu nga jënd leen ñuy saga gor ñi di leen xass né ñooñ ñoo bon té ñoom ñoom ñoy ñu bon ñu ñoom ñoom ñi jaay seen gor ñoom ñi alal tax ñuy saga nit ñi té alal joju alalu sénégalais yi la di nan deretu sénégalais di ko di soussé le sang des sénégalais ñoom ñoy ñu bon ñi ba tax na comme ni ma ko waxee ci début bi ñooñu lu leen neex tey sax mën nañ ko def parce que Macky Sall lañ àndal kon dañoo dem ba jàpp ne kon nguur gi léegi nekkatul nguur goo xam ne sénégalais yi ñoom ñoo ko moom mais nguuru Macky Sall la Sall fay timboo ak seen ay xarit ak seen ay suq lu tax sénégalais yi di nangu loolu. lutax ngeen di nango fal nit ba pare ko top ci gannaawam nango nek jamam nango nek suqam muy def lu ko neex ngeen top ko muy jël alal di len jox alalu sénégalais yi ngeen koy lek ba pare lu mu def ngeen cautionné ko pour lan loolu nak mo waral gaston Beng genn wax waxam ju reej ji parce que xamne ne dara du ko ci fekk man j'ai entendu pas mal de personnes des analystes politiques des journalistes des chroniqueurs des liveurs bi Gaston waxee waxam ji lan lañ njëkk a wax du mujj fenn du mujj fenn fan la mujj imaginez leen loolu man ma man Sénégal tay, ubi sama connexion di def live voilà nous invité sur une plateau de télévision ma y kaddu yoy noonu Gaston Mbengue yëkkati wax ko dig ñomay jël si duñ ma sax convocation procureur ci tang tang bi wax wa dig wala wa brigade de recherche dem ngeen ñaata yoon lañ ko def ñu bokk ci société civile bi ñaata yoon lañ ko def ñu bokk ci opposition bi ñaata yoon lañ ko def ci activiste yi ñaata yoon lañ ko def ci liveur yi ñaata yoon lañ ko def ci chroniqueur yi wax benn wax boo xam ne nekkul sax wax ju graaw a graaw parce que wax man te gën a rëy wax man te gën a graaw li Gaston Mbengue wax mais dañoo dem jëli leen dem yóbbu leen. parquet procureur déféré leen d'or leen sous mandat de dépôt mais Gaston Beng dafa xamné ne Macky Sall boo mom moom loo manti def ak lo manti wax quelle que soit gravité bi da fay sax kontaan ci yow so moytuwul sax daf lay rémunérer récompenser la gis nañ ko fi bataille, mais Macky Sall récemment Djibril Ngom nga xamné c'est un veillou un délinquant électoral contre-valeur bu melni Djibril Ngom nek ak ay nawlem dem infiltrer len wax ak ñom ñooñu wóolu ko def ko mandataire au niveau de Matam nek mom il n'était pas de bonne foi intention bi mu amone moy yakal liste yeewu askan wi waa yeewi candidat Matam xam nga du gor gor du def loolu jàmm boobu di Jibril Ngom contre valeur bu mag boobu di Jibril Ngom ginnaaw bu mu lu bonam loolu en complicité avec Farba Ngom Macky Sall dafa Jibril Ngom ci bi recevoir ko récompenser ko jël xaalis jox ba pare tiim benn chèque di bind ñu bëri dañoo foog ne chèque la xaw ma nag lu mu doon bind mais niru na chèque <laughs> mën naa am sax chèque gu la parce que président moom xam naa ne moom caisse noire am ba ma nga trésor bu la bindalee chèque nga dem trésor ñu fay la te kenn du ko contrôler waaye daal tiim na di bind ñu ye bëri yaakaar ne chèque la xaw ma nag ndax chèque la am déet waaw yàlla rek a xam waaye niru na ko waaye li gën a ñaaw li gën a salte moi institution vous toll palais de la république que première institution au Sénégal qui dit exécutif bi mom lañ koy jox am jox nañ palais tégal la fa ay gendarme tégal la fa ay policier dara wul ci bir palais Sénégalais yi président de la république yow lañ fay teg ñi lay garde kon loolu mooy institution bu gën a mag ci Sénégal Macky Sall ñëw jël pale boobu décrédibiliser ko recevoir fa benn wëyu benn bandi kon wane na ne moom yëg na li waa ji def te xëñ na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo yebal waa ji pour ñu dem infiltrer waa yeewi askan wi pour yàqal leen ba waa yeewi askan wi yàqule ci Matam bañ faa am candidat quelle honte gàcc gis nga un président de la république bu Sénégal warul mel ni Macky Sall ñun mérité wuñ ñun Sénégal am un président bu mel ni Macky Sall un président irresponsable indigne nga xam ne affaire u démocratie moom xamu ci dara amul vergogne soxlawul ku am valeur ay contre valeur lay àndal ay nit ñu tekkiwul dara soxlawul boroom xam-xam soxlawul nit ku digne ki nga xam ne mooy le premier magistrat du Sénégal nekk le président de tous les war na yore beneen jikko bu dul jikko bii nii tey jii ñun ñi nga xamante ni ay tubaab lañ te di wane ne ñoom duñu ay jullit di wane ne seen ñun ñoo leen gën culture ñun ne suñ maam yi amoon nañ culture bu baax ñoo ñu sax tey ñooñu gën ay valeur tey ci nu ñuy jiitee réew ak seen président comportement bu muy amee ak gouvernement yam les membres du gouvernement Macky Sall tey ay Gaston beng lay àndal Gaston Mbengue di taxaw di saaga ay nit mag bu ñàkk jom boobu mag bu ñàkk fulla boobu mag boobu nga xamante ni tey bokkul ci mag yi defar réew waaye mag yi yàq réew la ñooñu lay Macky Sall di àndal te ñooñu tey yi warul woon a sax di jaxasoog ñooñu parce que ay contre valeur lañ duñu ay référence ñooñu ki Sénégalais yi tànn fal ko mooy ànd ak ñooñu sagaru nit yooyu Gaston Mbengue Djibril Ngom même ba tey ñi koy défendre sax moom duñ ay référence ci Sénégalais yi Sénégalais yi nawloowu leen dem nañ ba gis benn xale bu jigéen bu ñuy tuddee ràngu toog takk sol ay weyam yu gudd takk ay xefam tok nan jox leen troisième mandat xaw défendre Macky Sall te <laughs> da ngay xam li ci da ngay ne si ne xëy vidéo défendre le président de la république est-ce que le président doit avoir besoin de Rango, de Gaston Bengue, de temps en temps bu ñëw euh, nekk ci télé boobu noonu di leeral leeral xawma lëndëmal di jël Ousmane Sonko di yàq daram di saaga gor ñi di leen tilimal te ñooñu dañ leen a envoyé ñu tey la président Macky Sall di àndal ñu baax ñu set ñi ñu am valeur ñi ñoom sax dem nañ ba seen yaram sax dafa séexlu Macky Sall bu bëggatuñoo ànd ak moom lii moo am Sénégal tey soo àndeek moom defal lu bon lu la neex dara du la ci fekk ñi ànd ak Macky Sall tey te def fi lu bon kan lañ ci tëj kenn rek laa gis ñu tëj ci kaso te tëj boobu du tëj loolu mooy demal toog tuuti ba coow li fay ñu génnee la def semblance ne jàpp nañ ko te fekk au fond jàppuñ ko te loolu sax am na lu nekk ci gannaaw loo xam ne xëy na waa ji mën naa am da leen a menacé ne su ngeen ma ci kasso bi dina len dévoiler moy affaire Bougazelli bi ak faux billets yi ay milliards de francs CFA loolu c'est un crime économique loolu dafa dafa dafa jéggi dayo ba paré kiko def nekkul un citoyen lambda c'est un élu du peuple un député représentant du peuple à l'Assemblée nationale Seydina Fall Bougazelli ci deuxième institution bi ëpp doole ci réew mi muy assemblée nationale nga xam ne fa ñuy voté loi yi kuy voté loi est-ce que war nga war nga jalgati loi kooku tey moom moo dem jël mbubu député bi mu sol di ci abusé wu ba dam di def trafic de faux billets te kooku mo waroon joxe bon exemple ñu japp ko à flagrant délit gendarmerie brigade de recherche mu len di jéem guerre ñoñu bañ ñu jël ko yóbbu ko tëj ko kasso 6 mois ñu génnee ko pendant ce temps ma nga bàyyi ci prison ba ko xamné ne la sàcc ko xamné dafa yorel nit 50000 francs ko xamante ni dafa tok wax ay wax jaarale ko ci réseaux sociaux yi loo xam ne nekkul sax lu grave grave yooyu noonu ñu jàpp ko tëj ko ci kaso bi bande bi le délinquant économique kooku ñu génnee ko ba pare au lieu que mu génn noppi mu génn nekk ci télé yeeg réseaux sociaux yi di saaga ay nit di déclarer sa candidature à la mairie de Golf loolu yépp ci si nguuru Macky Sall la amee ñoo xam ne tey kaso lañu waroon a dee tey malgré Macky Sall lañu àndal ñooñu tey ñooñu ñoo nekk ci biti ñoom lañ jël na ñoom ñooy ñu baax ñi ñu baax ñi ñu jël leen na ñoom ñooy ñu bon ñi mooy classe Ousmane Sonko ak ñoom Barthélemy Diaz nga xam ne dañoo gore ñooñu la ñuy bonal ak suñ classe nga xam dañuy toog ci dëgg ci internet bi di wax dëgg te amuñ xaalis te am na suñu ay morom yoo xamante ni tey ñu ngi topp gars yi di leen dunguru di dem seen bureau yi di rang parce que nanguwuñoo liggéey xaalis bu yomb lañ soxla bokk ci séddoo bi képp ku dem di ànd ak Macky Sall mu lay jox xaalis ngay jël di lekk di ko défendre yaa ngi ci seddo bi yaa ngi bàyyi ay sénégalais ci ndox mi inondation bi di leen rey yaa ngi bàyyi ay sénégalais ñu xiif yaa ngi bàyyi ay sénégalais ñu feebar duñ mën a faju ki xaliss bi ñu leen waroon a defalee loolu yëpp jël yow di ci jox parce que da nga and ak ñom motax suma gisé ko and ak Macky Sall ndax dañ la jox poste wala ñu jox la xaliss ngay taxaw di titeru di saga nit ñi dama nan la yow do gor ñun lepp luñu liggéeyul soxla wuñ ko ñun lepp luñu jox suñu njabot ñukay lek diko di ko seen biir bi dañ koy ñak on n'a pas besoin di top, ay wa keur Macky Sall yi ñuy jël xaliss ñuy jox pour lan loolu du ngor ñooñu ñooy défendre Macky Sall tey li ma leen doon wax sànq nag ñi ànd ak Macky Sall kenn rek bi Macky Sall falo ba léegi moom lañ ci mas def def soi-disant tëj te tëjuñ ko mooy Seydina Fall Bougazelli parce que dañ ko jàpp en flagrant délit bu ñu ko jàpputoon flagrant délit du mujj fenn wala mu mënoon na euh, corrompre gendarme yooyu noonu mooy ñoom Abdou Aziz Mbaye boobu muy wax ak capitaine euh, Touré si la bokkoon ak jigéen ba mu nekk fa di caalit naan mën wéy yàqu naa ñooñu tey bu leen mënoon a corrompre da di corrompre affaire bi di mujj fenn te bu ko ñoom Macky Sall yégee sax dañ koy jël nëpp nëppal ko loolu nag moo may fit Gaston Mbengue parce que ànd nag Macky Sall mu ngi yëkkati ay milliards di ko jox muy euh, tëgg ay làmb te jeunesse bi soxlaatuñ sax làmb léegi lamb day am melni lamb amut parce que dafa bëgg di divertir xalé yi parce que gis na né xalé yi yeewu nañ légui mu dem teg ak Macky Sall deal pour muy jël milliards sénégalais yi di ko jox mu dem di tëgg ay lamb di fay ay juromi mbeur ñenti mbeur di joxe ay 4 avance ak ay 5 avance pour xalé yi faté l'essentiel bi moy le vrai changement bi Ousmane Sonko oté ak révolution bi pour le Sénégal meilleur foog ne xale yi ñu ngi dof ba léegi xale yi dofatuñ léegi làmb day am mel ni làmb amut ay benn benn ngay gis ñuy commenté ci làmb ji làmb ga Gaston tëgg na fi làmb ginnaaw bi mu waxee toj tojam bu mag boobu ci mi Diaz ba ci lendemain bi mais kenn faalewul làmbam ji te am na ay làmbam yi ñëw kenn lijjantiwu ko kenn calculé wu ko parce que xale yi léegi yeewu nañ léegi nag moom garantir nañ ko ne ko loo manti def ak loo manti wax yow dara du la dal parce que am na ñu la jiitu woon wax nañ fi lu ne te Gaston Mbengue boobu masul wax jàmm heure bu génn ubbee gémmiñam gu bon googu noonu gémmiñ gu ñaawam gi na ma yàlla baal ca tilim gis nga ni mu mel noonu sax la ko yàlla bindee parce que dafa am doomi adama yoo xam ne yàlla da leen moo tax boo gisee rek ni ko yàlla bindee ngay xam ne kii ku alaku la di dox ci kaw suuf parce que nit soo demee ba amoo looy jomb amoo looy rus gëmoo yàlla gëmoo yonant bi xaalis rek nga gëm képp ku yore xaalis lu mu la sant

nekk des propos haineux des propos ethnicistes et xénophobes boddante ci biir xeet te loolu dafa ñaaw de la part d'une personne boo xam ne tey jii soixante-dix ans ya mat na waroon na bokk ci ñuy defar Sénégal nga xam ne moom dee sax la gën a jege ko dund parce que li mu dund dootu ko dundaat can Sénégal, je pense que je suis 150 ans. 120 ans. Les gens 100 ans, ça devait être fait. Les gens qui ont fait ça, ils ont fait des idées, ils ont fait Parce que les gens qui ont fait ça, ils ont fait des règles. Si je suis un président, je Parce que Macky Sall, c'est le président. Moi, il y aurait caisse noire. Moi, il y aurait avantage. moo yore nguur gi comme ni koy sénégalais di waxe lolou motax masul andek ak opposant ben yon la massa and ak opposant moy bi malik Gakou créer parti mba grand parti mu dem fa yagou fa sax daa dem rek ñu oko nako ñewal mu ñew parce que malik Gakou yorul caisse noire malik Gakou yorul décret tay ji bu Ousmane Sonko nekkoon président suba xoolal wala kenen nek président suba mo fi gëna ñak jom ak

waaye nag ci moment bi am na journaliste yoo xam ne duñ mën a def loolu parce que am na journaliste yu bëri yoo xam ne tey jënd nañ leen tey moo tax li ma waxoon sànq rek Macky Sall li Ablaye Wade waxoon moom loolu daf ko jàpp daf ko ci boppam bi donte Ablaye Wade ko gën du moroomam moo tax Idriss Seck waxoon ne il a tous les défauts de Wade mais aucune de ses qualités mooy ne su ma ñëwee. lépp lu ma mën opposer rek dina fexe ba xapp fa xaliss jënd leen ba dootuñ ma contre motax tax journalistes yu bari léegi kenn xàmmeetul sax les vrais journalistes ñi nga xamné sax ñom ñoo garder sen dignité garder sen ngor sax dañ leen di saga chaque jour xolal Serigne Saliou gay ko kan mo gëna diñ mais kërak buñu dajé ak ndaw soos xawma jëj ji xawma yëj ji nga xamné c'est une transhumante serigne Saliou gay diko ko wax mëna dang may xass serigne Saliou nako luma lay wax moy dëgg parce que ya fi créé won les Amazones de wad tay dam nga ci Macky Sall lu tax nga dem fa intérêt moo tax du gëm réew mi du gëm pour liggéey réew mi parce que bi mu fa nekkee Mansour Faye la fa doon neexal di ko défendre di neexal goro président di neexal président mais ba ban xam-xam la fa wax boo xamante ni lu mën a jëmale réew mi kanam la wala loo xam ne intérêt sénégalais la waxu fa tous lu dul maram Mansour fay dafa baax nangam président waaw kenn mënul ci moom dara yàllaa ko fi waxu ñàkk xorom yooyu ils n'ont plus d' argument amatuñu argument léegi boo leen invité ci plateau télévisé sax léegi dañuy daw da gis ay ndumbelaa nag yenn yeneen plateau yi am dangay gis quatre contre un parce que ñoom koo ci invité mu daw am na ci koo xam ne sax budde woon na plateau bi ndax dëgg yi sëñ Saliou di wax mooy Zator Mbaye xaw parce que doo am loo wax moo tax dangay ngay toog ak nit ki nit ki daf lay wax dëgg yu wér peng xoolal sëñ Saliou boobu est-ce que bokk na ci journaliste yu ñu jënd mu ngi gardé dignité mais ndaw si sax ci biir plateau bi mu ngi koy nekk di ko xas naan ko waaw tu es soo waxee dëgg sax léegi ñu ne tu es man mii moom xam naa ne wax nañ ma ko ba ma sonn mais man je m'en fous <laughs> man li may am doy doy doy na ma quoi man sénégalais yi ñoo ma gënal Macky sàll ñoo ma gënal Ousmane Sonko wax dëgg yàlla sénégalais yi. Sénégal je gënal venu. man je préfère dire la vérité man man suis kenn di jaayanteeg yow wala may am faiblesse doomi suis amul faible devant personne man man dëgg laay ku ma mënti àndal ci fekk nak baax na ay en tout cas man je me contente de ce que j'ai man lima am man ci contenté lijjantiwuma ay xaalis ak ay alalu aduna man juma fou ay keur rek ay nangam man dama japp ne ben keur rek mo am ci aduna moy bammel parce que bobu rek moy keur këru deug gi legui ndaw soosu xam seigne sëñ Saliou Guèye da koy wax deug mu naan ko yow tu es aigri da nga demone ci ministère yi ban ministère pour nek fa conseil en communication jëluñu la loolu moo nga mer di tirer ci Macky Sall te seigne salou limi wax yëpp c'est la réalité deug la beneen journaliste biñ fi am moy Pape la mais lu na pour la patrie pour et pourtant bu ci Macky Sall ko non xagn na heure bi mu ngi dawal ay 4 rafet am ay kërëm compte bancaire am fess ñu ko conseiller ci ministère parce que soxla nañ ko ba moment ñu ñu jël ko boo demee wal fajiri fekk fa mustafaa Diop bëri wuñu ah, mënoo lim sax ñu bari xañ na am na ñoo xam ne sax xañ na man xaw ma leen waaye ñi ci ëpp tey ku xees ka nekkoon ca groupe de presse bu Youssou Ndour ba gis nga ko moog ñoom àndal toog nañ toog ba mu yàgg bon moom moo nekkoon directeur général bi créé groupe de presse bopam groupe de presse boobu so amé xalaat da ngay xam ni démé da ngay xam ku nekk ci gannaaw ku ko financer yenn xel moo koy matu ñu ay borom xel lañ momit ma nga ci nedd ko bandisme bi il a nedd ko bandimisé le Sénégal mal malheureusement pour mom nak lolu réussirul sax ah, ay benn benn rek ñokay top ci lolu mais Sénégalais yi gëmuñ lolu Sénégal benn bop la kenn mënu ko xar ñaar kenn mënu fi gëmloo nit ñi ne ay président qui ay président serer ay naar ak ay njaagoog mankaañ ak ñun xola ku manti président ñun li ñu soxla ci yow du ay pël nga wala joolaa wala ay affaire bi nga ñun nous concerne pas tarixa ba nga bokk lijjantiwuñ ko diine ja nga bokk lijjantiwuñ ko xam nga lan ñu li Sénégal di xaar ci yow les priorités loolu la ñuy xaar li nga xam sénégalais dañoo toog di xaar soxla ko mooy bu ñu ñu lekk bu ñu faju bu voyager daw ci ay tali yu am ndox mu ñuy naan am courant bu doy mooy nécessité le nécessaire defar Sénégal ba Sénégal na boy ku nekk di gis bopp Sénégal ndaw yi am industrialiser dëkk bi autosuffisance alimentaire am am des institutions fortes l'homme qu'il faut à la place qu'il faut le Sénégal quoi ñun lañ quoi on a besoin de d'un président comme ça quoi mais pas un Sénégal un président qui qui divise pour mieux régner un président qui nomme que des alpulaar quoi y a une balle. mais Wadi, day def loolu donte am na alpulaar yu bëri yo xam ñom ñoom dunduñ loolu ñu ngi and ak opposition bi ñu ngi ci société civile bi ñu ngi ci euh, activiste ak ñeneen ak ñeneen mais ñepp ñëpp xam wadi, def fi teg loolu te pourtant bi muy laaj réew mi masul revendiquer sax ana mom pël la mais après loolu la fi bëgg installer mais nak ñiko ko ci topp bëriwul ah il faut qu'on se dise la vérité loolu moo taxoon Penda Ba dem ba a bu ndaw ñu né xawma mo Farba Ngom ñoo bokku dëkk añam xawma pend ba toute une ethnie ci internet def ñu parce que bobu <laughs> voilà Ami mu bi dafa audio audio WhatsApp xam ñu diffuser ko diffusion de données personnelles ñu jàpp ko ci loolu si loo xam ne en privé la ko doon waxee léegi nag pend Ba wax loolu ñu jàpp leen ñoom ñaar léegi bëgg a pend Ba ñu libéré waale Ami Collé parce que su moment boobu mën mënuñu woon a libéré Penda Ba mi nga xam ne lu mu def moom moom moo toog yoreel boppam téléphone am nii defal ko boppam saaga ñëpp sénégalais yëpp indi fa affaire yu xeet comme li Gaston Mbengue def. bokkul ak amicale bi nga xam ci groupe whatsapp la nekkoon di wax xalaatam ne diw unku la ñu japp ko ci diw unku la ci ci ci ci message privé bo xamanteni dafa nit moko jël diffuser ko mu nekk diffusion de données à caractère personnel xaw ma lañ koy waxee te xoolal Gaston beng wax ji mu wax kenn jëliwu ko kenn waxu ko dara te amicale après dañ ko jëli tëj ko pend ba lu ñu jàppoon Ami Collé moo tax ma mënuñ ko woon a bàyyi ñu def semblance jàpp ko après jékki-jékki ñu ne libéré nañ leen ba mu génne nañ leen ko def utal ko passeport diplomatique mu génn dëkk ba xaw ma fan la ne boo demee mën na dem fenn sax ut fa asile ah, parce que tey voilà bu demee ci yenn dëkk yi bu wanee ne moom dafa saaga benn ethnie foofu noonu elle est mais dañ koy jox dañ koy jox asile dañ ko koy jox parce que bakkanam ci xottu gerte la nekkoon mënoon na génn ci mbedd mi gars yi rey ko wala dara. mu jël fen parce que Macky Sall la andal ba tey ci affaire u ethnicisme bi ñuy bi ñuy bi ñuy installé Sénégal mais Aline Doumbérou saw un député momit fi fii la taxaw Mais yéen pël yi ba paré diko wax ci pël dem ba Fuuta né Macky Sall da fé wara tok am trois mandats malgré oppo ki bi constitution bi mayu ko parce que mom daf koy wax en tant que nee mom moom pël la ci côté boobu la koy waxee quoi mu ne dafay war a toog am trois mandats bu paree jox Aline euh, kii nii Abdoulaye Daouda Diallo parce que moom tamit il est pël encore xoolal ñii ni ñu naree yàq réew mi rek ba nar fee dugal ay affaire u ethnie te loolu Sénégalais yi dunduñ loolu vraiment Sénégalais yi dunduñ ko pël yi tamit dunduñ loolu nañ waxante dëgg benn parti bu ndaw la mooy ñoom ñoo xam ne seen intérêt la ñuy sàmm. mais pëlu Sénégal yi dunduñ ay affaireu xet xeet pël yaa ngi sëyeeg séeréer yi ñi ngi sëyeeg njaago yi ñi ngi sëyeeg saraxule yi ñu ngi sëyeeg naar yi hein ah, ah balante Sénégal ñun amuñ problème bobu on n'a pas ce problème amuñ problème bobu ñun dañuy sant yalla ci lool té ñom duñ ko réussir hein duñ fexé ba réussir lool parce que Sénégalais une mentalité du mentalité bobu heureusement pour ñun malheureusement pour ñom Alex Doumérou Sow ne léegi su loolu mënul sotti nag pël yi jël ay jaasi pour jàmmaarloo mu oote moom tamit génocide la oote woon moom it mujjul fenn moom tamit kenn defu ko dara mu dem ba assemblée nationale taxaw fa di menacer Manga mooy le député Manga député du PDS naan ko man jaasi laa yore te su ma génnee boo ma dabee di nga xam ne sama jaas bi laay laay lijjantee sama affaire man ak yow ci assemblée nationale bi la taxawee wax ko mais loolu dafa mu jul fenn Ablaye Diouf Sarr mi nga xam ne nee nañ moom mooy candidat wu Dakar fii la doon taxaw ci sama mbokk lébu yu naan waru leen a fal Dakar keneen ku dul lébu man mii lébu laa te ànduma ci gëw ma yooyu man li ma gëm mooy sénégalais laa gëm. nekkal lébu nekkal bay nunke nekkal basari nekkal manjak nekkal mankaañ nekkal joola séeréer pël naar saraxule je m'en fous xam nga lan laa lay xoolee sénégalais laa lay xoole man bokkal ci tarixa bu la neex nekkal tiijaan laayeen cadre sama yoon nekku ci nekkal julit nekkal animiste nekkal chrétien nekkal juif je m'en fous yaa moom sa bop man moomuma mala Sénégal c'est une république laïque parce que lool si lool lañ juboo ah ba bam mu nekk ci constitution mu tënk ñu te kenn ku nekk nak na nga respecter li nga xamanteni ay nit ñoo dajé exprimer wu voter ko né li ni moy dox ci réew mi waaye dangay gis koo xam ne day diaboliser nit pour bëgg ko yàqal ne nit bokk gëmul tarixa wala nit nangam la làkk bii lay làkk wala ci diine jii la bokk wala ci biir diine l'islam ji ne idéologie bii nii la am soit salafiste wala nangam wala leneen man de li ma intéressé mooy ku ñëw mën a lijjanti Sénégal faj soxla sénégalais yi fi Sénégal nekk mooy pauvreté bu fa am ak dellu ginnaaw gum dellu ginnaaw bokk ci les vingt cinq pays les plus pauvres au monde loolu na dëñ ku ko mën a saafara comme Paul Kagame ni mu ñëwee jël Rwanda après génocide bi amoon 94 fexe ba Rwanda léegi bokk ci réew yi gën a développé ci Afrique di émerger di dem nekk royukaay ñun loolu lañ soxla ak ni gën a mel ci démocratie bi nga xamante ni dund na ay coup d'état ba sonn léegi démocratie bu dëgër am fa bonne gouvernance am fa transparence am fa ni Cap Vert mer nga xam ne Cap Vert ak Sénégal ñoom rek ñoo amul coup d'état ci pays yi nekk Afrique de l'Ouest Cap Vert léegi bonne gouvernance transparence am ay alternance yu set wecc sax dañuy organiser ay élection coow du jub bal du tàkk ñun loolu lañ soxla ñun ñëpp raw nañ ñu Gambie sax raw nañ ñu seen élection yi ñu ngi ko organiser jaarale ko ci yoon déggoo fa ben coow déggoo fa ben problème mais Macky Sall dafa ñëw ñu jox ko réew mi moom du organiser élection à temps il ne respecte pas le calendrier électoral ba pare il recale des candidats day ay ay nit pour ñu bokk di def ay pexe di yakh casier judiciaire jambu jàmbur yi di len rendre inéligible dañuy dem sama duñ mëna a ko ko ko est-ce que nit ku baax la lan moko fi jar. bañ nit ba ne yow sax doo daal daa fexe ba dootoo voté ci te kenn du la mën a fal loolu daf Khalifa Sall daf ko Karim Wade te loolu la nga doon def Ousmane Sonko sénégal yi génn na loolu du ci dal kon kooku du nit ku baax moo tax mu ànd ak ñu bon ñi ñu àndal ñu yàq réew mi jël ay nit dévaloriser leen tey imaginel tey am na ay kilifa diine yoo xam ne dañoo dem ba leen di saaga léegi ci internet bi pour lan parce que waa ji moo leen saagalu dañ waxante dëgg ak ay ilimaan parce que day ñëw comme lim defoon ci bopp ba rek ak ki ko yar ci wàllu politique chaque sénégalais a un prix ñëw xapp la xaalisu sénégalais yi yow rôle bi nga waroon a jouer en tant que kilifa diine nga jël ko sànni ko fële topp ko moom di ko jàppale ba ay saaga fekk la ci. xolal tey cadre unitaire bi ñuy wax tey mooy CUDIS xolal seen jeng gi ñu jeng nu mu jéggee dayoo ba sénégalais yëpp teg ci seen bët moo tax waa AIS ñoom euh, Serigne Cheikh Mbacke Khadim Awa Ba mais dañoo roccee ko après parce que gis nañ ne sénégalais yi atte nañ affaire bi xam nañ ne lii ay affaire yu caaxaan la doon te respecté nañ leen ay kilifa lañ mais boo jàngee alquran jàng xadis yonent bi jàng diine xam lan mooy diine. mais war nga mën até xam nga lu jaadu ak lu jaaduwul parce que ma faradna fi kitab min shay'in yalla amul dara lu mu Al ci alquran ji alquran boko jangé man ka fi mais xam nga li xew xam nga li yalla wax yépp lepp lu am niñ ko wara até ci diine comme ay nitu diiné ngeen mais ñu olen melen da ngeen di créer ben cadre unitaire de l'islam ngeen da ngeen di signaloo nit ñi ay charte pour la paix parce que dëkk ba dafa am ay violence te violence bi ñoom xam nañ fan la jógee ñoom ki leen koy def loo sax daf koy def parce que dafa bëgg piéger opposition bi plus particulièrement Ousmane Sonko te moom au fond moom xam na ne moom moo violent de moom xam na loolu mais dafay jéem a tuur sénégalais lëndëm sénégalais lay jéem tour tuur lëndëm ba pare violence boobu nek ci mom mu bëgg ko transférer Ousmane Sonko daf ko ko bëgg transmettre wara ne Ousmane Sonko mi ñuy tooñ muy résister di bañ ak ñi mu andal kooku mom si Mom mo violent mom dafa wara a ñukoy saga diko saaga diko attaquer physiquement Mom sax waxon na leen na leen saaga yi sax ak calomnie Mom d'accord garaawul mën nako gérer mën nako muñ parce que du ko wàññi dara wàññiwu ko dara au contraire sax daf ko gën a yokk mais nag kenn du ko attaqué nag physiquement mu toog di la seetaan parce que yonent bi sax kenn gënu ko woon pacifique parce que diine lislaam jàmm sax la ñuy oote bañ ne ko bu ba ñu nuyoon te sax asalaamualeykum la ñuy wax asalaam mooy jàmm aleykum ci yéen kon diine boobu jàmm lay prôné diine jàmm la mais dañ koy diaboliser wane ne ñoom dañuy rayaateeg yooyu cest à mooy ñi ko contre mais yonentu boobu nga xam ne nitu jàmm la woon moom da doon toog ay nit di ko saaga di ko xas di ko wax lu nekk mais di leen faale mais nag boo ñëwee nag fekk ko mu toog nga déclaré ko laa guerre bëgg a dal ci kawam mais dafay riposte Ousmane Sonko c'est ça qu'il qu'il qu'il a fait léegi nag ñoom ñu xam loolu en tant que ay nitu diine Macky Sall oo leen na leen dem leen ngeen signaloo gars yi ñu dem. ne dañuy signaloo gars yi te gis violence bi fu muy jógee te mënoon na taxaw am courage dénoncé ko te dénoncé wuñ ko te am parce que am na ñoo xamante ni ña nga fa am na sëriñ ba fa nekk boo xam ne ay chef d' entreprise la ay entreprise la yore day gagné ay marché état te bu contrer état bi xam na Macky Sall Macky Sall ku ko contre da lay xañ ñëpp gars yi lay oo na leen diw bu leen ko jox marché mais ku la abal bët fu ko neex ngay xool ñom ñep Macky Sall lañ àndal man loolu dama koy assumer man bëgg a Ousmane Sonko signé loo mu signé bu gars dalé ci kaw mu fay ñu ne ko ah yow ya signé woon li loolu lañ bëggoon té xam nañ né jamm su Macky Sall bëggoon mu am mais day am parce que problème yu fi am yëp yëpp wul ci opposition bi il faut qu'on se dise la vérité est-ce que mas ngeen a gis Ousmane Sonko daf benn déclaration wax gaayam yi ne leen dem leen attaquer benn mitingu Macky Sall wala muy réunion naan dañuy def ay pexe pour attaquer waa kër Macky Sall yi wala pour saaga leen wala pour dal ci seen kaw ñoom ñooy def loolu di ñoom ñooy saaga Ousmane Sonko suba ngoon guddeeg bëccëg dem ba jël ay xale embauché leen jëndal leen ay connexion ñii jëndal leen portable ñii jëndal leen ordinateur portable ñu créé ay faux compte def ci ay photo sëriñ di mbubboo Sonko di saaga. ñoom ñooy def loolu ñoom ñooy jël ay photo tamit di ci def photo Macky Sall dugg ci kii naan ay justice à ajisaar Sarr collé photo Adji Sarr ak Ousmane di saaga Ousmane Sonko di ko naan violeur violence boobu lu ko gën a métti yàq der ci lan ci post politique rek ci koo xam ne daf ne man damaa bëgg réew mi pour defar ko comme Macky Sall nu mu bëggee woon réew mi ne mën na ko defar man am naa tamit droit boobu noonu. pour laaj dire mi ñu ne ko non non loolu yow doko def amon ci droit pour ñom quoi nee Ousmane Sonko amul droit pour am ambition pour être président de la République Macky Sall dal mom mo wara tok mom éternellement quoi moo fi war a toog jalgati constitution bi nga xamné mom moko euh, voter lu won en 2016 après pare toog ci télé bi né man bima nek ni moy sama premier mandat suñ ma falaté damay am deuxième après mu jeex moy révision constitutionnelle bu mu defone en 2016.

ñu xamné il peut faire mieux que ñom bu ñëwé ñom ñëpp ñu manko nak dem jël seen ay shaytané seen naafeq ñu xamné xam rek lañ gëm ci entité yëpp ñu dem fa ger leen ñuy attaquer Ousmane Sonko Ousmane Sonko dafa violent ana violence bi wax dëgg moy violent té ay nit ñu jang diiné ñoy taxaw di wax lolu dé xam li yalla wax ci tooñ xam li ci yonent bi wax xam li yalla wax ci fitna wax ne wattaqu fitnatun laa tusibanna allazina zalamu minkum xaasa wattaqu fitnatan laa ban tusibanna allazina zalamu minkum xaasa yonent bi ne unzur axaaka zaliman aw mazluman ñoom loolu yëpp jàng nañ ko su fekkee Macky Sall mooy seen mbokk yonent bi nee na leen seen mbokk bu tooñee dimbale leen ko ak buñ ko tooñee nuñ doon dimbalee Macky Sall mooy dañ koy oo su leen wooxee su leen su leen Macky Sall oowee ne leen ñëw leen ñu def benn cadre unitaire de l'islam pour xawma lan pour la paix affaire yooyu mais nañ ko wax na ko président Macky Sall yow kat yow ñun luñ seetlu luñ constaté mooy li fi am yëpp ci yow lay jógee yaay recruter ay nervi sa ay ministre ñooy dem ci ay plateau télévisé di saaga yow yaa fi nekkoon di menacer nit ñi yaa fi dàq Ousmane Sonko impôt et domaine te tegoo ko ci yoon koo xamante ni dafa am mérite jàng def concours bu gën a métti muy concours ENA bi mu demee admis ko di servir réewam dignement parce que àndul ak yow le président de la république yow nga dàq ko ci jaay doole mu dem cour suprême def recours ñu débouté ko parce que yow yaay le président de la république yaa teg sa loxo ci justice bi yaay présider conseil supérieur de la magistrature di nommer sa ay magistrat ak say procureur loolu moo tax li nga bëgg loolu lañu lay defal koo amal problème dañ koy condamné tëj ko ko bëgg ñu tëj ñu tëj loolu yëpp ñoom gis nañ ko de cadre unitaire bi gis nañ fi ay niñ fi tëj jaay leen doole gis nañ fi aji Sarr bi ñu instrumentalisé pour mu jiiñ Ousmane Sonko viol yàq àddunaam loolu lañ bëggoon yooyu yëpp yu fi xew yëpp gis nañ ko bu fi xew violence lu ma doon wax ci Aline gis euh, ci euh, Seydina Fall Bougazeli, ba ci Abdou Karim Sall les Kewel euh, oryx mooy les gazelle oryx ba ci kaddu yi yépp yi Sall Paris ne je détiens le pouvoir et la force kenn je vais réduire l'opposition à sa plus euh, je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. fanying fany fi fi amati table gis milliards protéger président Macky Sall grande mosquée ba sama mais yo violence la ay violence la Ousmane ko dem Casamance ñu attaqué ko attaqué kër yaayam Barthélemy Diaz génn dakaar di doxantu ñu ne ko doo fi doxantu commissaire bi jàpp ko en tant que maire sànni ci euh, oto bi yóbbu tëj dóor garde à mel ni ku jàpp benn samba boy gaayam yi nga xam ne ay corps de contrôle dañ leen épinglé ñu def ay détournement de deniers publics mu leer nañ ñi mujjul fenn ba récemment li Gaston Mbengue def ñoom lu tax cadre unitaire bi kenn déggu leen ci man maa ngi leen doon xaar sax ñu génn sagal seen bopp tuuti sax ne ah Gaston de li mu def vraiment ñaaw na Sénégal benn bopp la kenn mën na ko xam ñaaw mais pourtant ñoom ñu ngi noppi de te pourtant bu Ousmane Sonko waxee na man du ma signé indi ay argument yam dañoo génn dal ci kawam ah, ki nga xam ne nee nañ moom moo ko jiite waroon na màndu moom moom si saa sax dafa wane fi mu far ne usman Sonko loolu bettu ma ci moom quoi xamoon naa ne loolu lay tontoo quoi juge Ousmane Sonko ci tàng-tàng bi nga xam na ñii tey ñii dañuy nax nit ñi rek mais Macky la ñuy liggéeyal ñii dañuy nax Sénégalais yi léegi kenn mënatu leen nax de foo manti féetee moo xam nga nekk sëriñ nekkal lu la manti neex ñun léegi duñu ay dof ñun ànduñoo nit ci ay jaayante ak ay complot di comploter ci ndoddu Sénégalais yi di lekk seen alal nga nekk sëriñ ak loo manti nekk danañ ko wax si yar ak teggin nag lañ koy waxee ah duñ ci dépassé kenn mais ci démocratie lañ nekk ak ci réew waxante dëgg diine sax monja ñëk nek démocrate diine l'islam mais yonent bi ñaata yon la daan tok ak ñom alin ñom omar ousmane ak yeneen saxaaba abou bakkar ak ñenen ñep def ben proposition parce que yonent bi état la yoré won dañ doon diso di tok nekul doon xeyr jël ben décision da doon ah. tok waxtaan wax gaay na len li ak li la xalat gaay nako ndax wax yu la su fekke wax yu la sami'na wa ata'na dañuy dégg nañ te topp nañ mais su fekkee nañ sa xalaatu bopp la nañ toog ñu discuter waxtaan ku nekk joxe sa xalaat te pourtant ñoom jàng nañ diine xam nañ luy diine mais li alxuraan di wax ne wa tabaa hawa mooy topp sa bànneexu bakkan ci loolu rek lañ nekk gars yi seen bopp rek lañ nekk xaalis rek lañ gëm ak alalu àdduna dañuy sonal nit ñi rek loolu nag moo fi jeex ñun respecté nañ sëriñ gëm nañ suñ kilifa diine yi bu baax a baax on les respecte mais nag képp koo xam da ngay di di sacrifier askan pour tes propres intérêts on va plus l'accepter nañ waxante dëgg xale yi léegi yeewu nañ duñ fi ngeen di Sénégal pour lan pour lan yow boo xewlee gars yi joxe défendre ci dara da ngay di mais jeex cadre unitaire bi ñu ngi leen doon xaar ci waxu Gaston Mbengue bi da ngeen ci xalaat génn leen kañ ñaawlu ko Gaston Mbengue heure bi kaso la ko waroon a fekk maa bëggoon tey caat wax ko caat wax na ko keroog sax ci télé bi caat bu yaanaamaar bu ko waxoon wala euh, Guy Marius Sagna wax ko wala Ousmane Sonko wax ko wala keneen kon de su boobaa moom xam naa ne dina métti lool.

ñu bari ñu tukki tay dañoo fay dem tukki mais man dama japp ne nit boo jàkkaarloog genre Macky Sall di xex ak ñom bul prêter le flanc waye kilifa ak nu manti demee jappuñ ko ci luñ ko wara jappé parce que ñom ci ci lu illégal lañ basé wu pour japp ko té juriste yeb genn nañ don maître Moussa Sar son avocat néna lo xamné dafa illégal mais nan lañ ci jappé nit diko ko parce que ko xamné ne del jow dañoo ñëw enregistré la à à ton insu loo xam ne yëgoo ko piège la di la wax loo nga wax te ñoom wax rek lañ dégg ah gisuñ jëf amuñ benn preuve mais kilifa def na loolu parce que kilifa il était virulent envers Macky Sall dafay attaqué bu day dem ci plateau yi di wax muy tàng jër di wax ay dëggam bu marche amee mu ngi ci kanam léegi nag ñoom ñu ngi def ay pexe pour jëm ko jàpp ñoom noonu lañ mas a mel ku leen contre rek. ñoom duñ jàpp ne ci démocratie lañ dañ leen war a compte mais dañ lay jéem a jàpp soit yàq sa der démasqué la ne yow yàq seen yàq ñoom wala ñu jàpp la jiñ la dara tëj kaso kilifa noonu lañ ko def kilifa deful dara mais sànq wax naa leen li Bougazelli def loolu lu ko gën a bon amul li Gaston Mbengue def lu ko gën a bon amul li Aline Dumbeeru Sow def ak ñeneen ak ñeneen mais ñooñu kenn defu leen dara léegi ñu jàpp kilifa tej ko ci kaso bi ba pare bayyi ki nga xamné mom moko ko enregistré muy Thier parce que ñom ñoo yenn tier wala bi don cambre yele ñu japp ko gis ay vidéo ci mom exploiter ko nako wala law am ci kilifa wala dara ñom dal kilifa lañ don rëbb quoi bi ñu amee kilifa nak légui ñu libéré tier non nak xañ na Thier daf leen menacer né so leen ma bayiwul dina wax ñu bayiko ko ki nga xamné mo togn mom lañ bayyi tay léegi ki deful dara ñu téye ko ci kaso ba Simon nee nañ dafa feebar mais kilifa lan moo tax ñu koy téye ci kaso ban preuve lañ am ñoom pour jàpp kilifa ne kilifa dafay ay trafic de visa trafic de visa tey bu fekkoon dañ siy jàpp ku noonu jàpp nañ ñu bëri Sénégal ñoom ministre yeeg ñoom ñu nekk ci nguur gi dañ koy def ana ñu trafiqué euh, passeport diplomatique yi du mujj fenn dañuy tour nit ñi lëndëm parce que Sénégal yaa ngi ciy wax ne leen levé nañ seen immunité parlementaire mais du mujj fenn parce que Macky Sall lañ àndal. parce que bële bële sax moo gën a leer parce que Condé bi ñu jàpp tëj ko kaso Condé boobu dafa génn wax ne diw ak diw ci député benn Bokk Yaakaar yi ñoom laa doon liggéeyal ñu am ay preuve ci état civil yi nga xamante ni dañ leen doon defal foofu noonu ay foo mariage dem ba célébrer sax mariage góor jigéen juste ci Sénégal pour yóbbu ay nit jox leen ay passeport diplomatique jaay leen ko léegi bu coow loolu jugee rek ñu dem jàpp on convoqué kilifa mu ñëw rek ñu jàpp ko mook Simon ci ay fen ci ay si lu illégal enregistré nit ci à son insu ba pare def diffusion euh, diffusion de données personnelles qu'il faut porter plainte euh tiers ba pare affaire bi mujjul fenn libérer nañ tiers bàyyi kilifa foofu ci kasso gi parce que dañ ne kilifa dafa contre Maxal Sall dañuy venger wu nii ci kaw kilifa loolu jaaduwul lan motax cadre unitaire bi nga xamné ñom droit islamique dañ jàng ñoom parce que alxuraan wax naa leen sànq ni leen maa faratnaa fii kitaab min shay'in tey jii boo xooloon kaawu kilifa tey ci niñ ko jàppee ci alxuraan nga jàng mën a firi di nga ko ca gis di nga gis yonent bi tamit fu ko waxee ci xadisam yi lu méngoog loolu lu tax ñoom dénoncé wuñ loolu ñoomit te loolu tooñ di ko gën a mag jàpp nit ci ay caaxaan xañ ku liberté ay doomam toog gisuñ seen baay jabaram toog gisul Euh, jabaram jëkkëram ay frère am yaayam baayam ak seen waa kër kenn mënta gis seen doom nga jàpp ko ci parce que dañ da la contre mais nul n'est censé ignorer la loi xam nga nul n'est au-dessus de la loi aussi mais nag nañ ko teg ci yoon du ne ay damay contre Macky Sall rek dañ laa war a jàpp tëj la ci kaso bi mais nañ xaar ba am ay preuves yu leer nañ xaal ba am ay mais kilifa nuñ ko jàppee jaay doole la teguñ ko fenn te tey ñu ñu waroon a jàpp tey ñu ngi taxawaalu ci mbedd mi Gaston nga ngi nii kenn owu ko police sax convoqué wu ko kenn ko bi mu ko waxee ba ci suba sax dafa génn jaay xamadi reewaande ak ñaawaayam bu doy na ma yàlla baal naan waaw li ma wax du ma ci waaw lu ma wax du ma ci retiré yoota xam nga comme moom moom dof la xam nga il est xam nga réitérer se propos ba pare waa Walfadjri dem fa mu ne day jéggalu loolu jéggalu la man maa ngi jéggalu waa Walfadjri yi lu ma wax nit ñi ñoo ko changé jéggalu boo jéggalu da naan man damaa juum li ma wax rëy na ëpp na maa ngi tuub maa ngi jéggalu Barthélemy Dias dinaa dem seeti ko jéggalu ko mais du ko def parce que ñoom Macky Sall loolu lañ ci soxla <coughs> yàqal Barthélemy Dias yàqal Ousmane Sonko à tout prix noo ko defee baax na tey jii bu demee ba. Gaston di yëkkati kàddu yooyu noonu nga xam ne Macky Sall daf ciy réjouir moom da ciy da ciy bég nga xam ne c'est c'est catastrophique parce que qu'il ne dit rien consent naqarluwul kàddu yi police ñemewuñ sax convoqué Gaston police mën naa am bëgg nañ ko convoqué procureur mën naa am bëgg nañ auto séjour mais ñemewuñ ko parce que waa ji après day dal seen kaw parce que waa la andal loolu moy le problème réew mi dafa Yak. Macky dafa Yak Sénégal Autre trahison Moi Ousmane Sonko ne dit wara def une pétition pour xam ne dañ koy jox nit ñi signé ko mais xam nga leen moom ciy jaaxal gis nga pétition vous bëss buñ ko défé ba jox ko que ñu nekk ci mbedd mi diko distribuer pour nit ñi signé ko fo leen di police yi fekk jàpp leen ñëpp dem dem tecc jaay leen doole loolu mooy problème bi waa ji tànk mu ngi fi ak gaayam yii nii ñuy toog di xaar ay carte ak ay nangam man gëw ma ne loolu moo ko fiy jëlee waa il faut Sénégalais yi déterminer pare bon waxuma nak ñu xeex auto ma violence mais waa mo paré wul pour joxé Sénégal xoolal jabar ji temps yi yu ñaaw yu mu def dem ci banlieue bi quoi di jël xaalis di ko sànni kooku lan lay liggéey jabar ji lan lay def ban métier la am profession ménagère kat amul benn qualification liggéeyul dara ma gis si site internet ñu naan xawma Marème fay recadre un policier ban recadre un policier ban droit la am di recadrer ay policier ak ban fonction la am ban prérogative la am première dame la elle n'a pas été élue par les sénégalais c'est son mari qui, qui, a été élu. mu jël au Sénégalais yi dem ci banlieue du di de séddale quoi loolu saaga la quoi mooy xiifal naa nit ñi élection mi ngi waaj jot dem pikin bi nga xam ne nijaayu Macky Sall mo fa nek muy Timbo di corrompre waa pikin pour ñu voter lat nijaay joju pour mu gën fa top séddoo nañ Sénégal Mansour Fay un ministre incompétent mosu ñoo def remaniement ba wàccee Mansour Fay lutax mu arrogant xamul sax nan la ñuy waxee xamul lan mooy état xamul mënul jiite mënul jiite Mansour fay parce que goro président nga da nga war a nekk ministre par force lu tax mais boo mënul nekk ministre mënoo nekk ministre ñu jël ñu ko gën a incompétent dàq leen ci gouvernement bi bàyyi Mansour fay muy saaga nit ñi di menacer di dalul nekk transporteurs yi grève Mansour fay nekk fa di tëkku naan ay ku man na nga ku bëgg grève grèveal ku grève dama liggéey mais ministre war na mel noonu fépp fu mu jaar dafa échec biñ ko joxee wàllu ndox mi mu échec ñu jox ko leneen mu échec mooy lan ko joxe woon ceeb bi ñu milliards yi yàq ko ministère bu mu dem du fa résultat bu baax mais parce que rakki Marème magu Marème Faye il faut ñu mom dafa wara a bokk ci gouvernement bi mais nguur du doxee noonu l'homme qu'il faut à la place qu'il faut compétence moy jiite mais du ay affaire ay famille pourquoi magu Marème Faye forcément mu wara nek ministre de la république lu tax mais su fekkee mën na nek lenen pour servir réew mi na dem nek lenen limu mengol mu def ko te ñoo jàpp ne ñoom Sénégal ñom ñoko mom quoi Marème Faye il se permet elle se permet dem ci banlieue bi di maye xaalis quoi ñun ay dof nan ay dafa oyof ak dafa bax ay nangam c'est-à-dire pour lan mais lolu c'est catastrophique est-ce que di nga gis dam ci rew yu bax yi gis premier dame bi yore xaalis dam di ko tasaare fan la ko jëlee lañ koy ñëk a laaj loolu mën nañ ci destituer sax président bi mais jàpp na sénégalais yi daal légui yow da nga leen di ñew xiifal leen bañ xif nga ñëw di leen jox ay dix mille francs ak ay cinq mille francs di leen ko seddale mais loolu mooy tax ñoom ñu jaay seen carte bu leen ñàkk fayda yeewu leen banlieue bi yéen a gën a sonn pauvreté mu leen di bëgg a rey seen doom yi amuñ liggéey bu tawee seen kër yi taa inondation di leen bëgg a rey pour ngeen dem ci gànnuwaay sax problème la am ay toilettes yu baax c'est un problème bu ngeen di fal maire far leen maire bu mën a ñëw liggéey dëkk ba jaarale ko ci yoon mais pas ngeen nangu di jaay seen carte électeur ci ay cinq mille francs bu élection yi passé ñu won leen ginnaaw dem seen yoon Faye amul xaalis moomul xaalis bi xaalis sénégalais yi la na wax nit ñi fan lay xaalisam bi di jógee ay fondation servir le Sénégal d'où vient cet argent fan lay jógee bala ñoo dee nit ñu ne Faye jël na la en charge pour lan bu ñu baaxoon duñ tabax ay hôpitaux yu ne bu nit feebaree day dem faju te du fay dara wala mu fay ak lu muy liggéeyee cotiser am carte vitale organiser affaire bam ba am CMI couverture maladie euh universelle tonte am na fa mais dañuy soob du deug dañ koy mbuboo réew rew mu nara bax tay tey dinañ jël di jital corruption tay ben première dame tay buy dam di corrompre nit ñi quoi ci rew buñ wax na dafa nara bax ñu naan dafa baax seytaane yi am na ñoo xam ne ay ignorant lañ xamuñ li xew première dame dafa oyof man je n'ai rien contre première dame parce que jotewuma ak moom dara mais lu muy def la war a bàyyi di dem ci banlieue bi di jéem a corrompre nit ñi di leen jënd pour lan xaalis bi fan lay jógee mais yan yi saaga saaga nday la waa banlieue bi encore une fois am leen fulla am leen fayda bu leen nangu Marème Faye di ñëw foofu di jël xaalis di leen jënd pour son propre intérêt pour dire que fi tok yag fi pour nijaay ji Pikine maire pour ñun compétence lañ soxla ak ku les dëkk bi di jaay sen carte électeur ci francs ak 10 francs loolu dafa ñaaw loolu la pour bu loolu am si leen dignité prenons le changement nañ pour changement sénégalais yi kenn ku nekk jot sa wàll ci li nga war a am nga jot ko dignement argent du contribuable bi wax naa leen ko képp ku nekk lépp loo jënd rek yaa ngi cotiser yaa ngi fay TVA loolu dañ la cee war a euh, jël en charge bala ñoo dee ñu naan Marème Faye ah, am na ku nekk ci internet bi dafa feebar maa ngi oo Marème fay na ñëw dimbale ma est-ce que di ngeen ko gis yenn réew yu baax yi. est ce que tay Marème Faye même su fekkone ne loolu daf ko wara def sax est ce que mën nako defal sénégalais yëpp est ce que sénégalais yu siwi rek la koy defal wala est ce que sénégalais yi nga xam dañuy buñu am fièvre dañ nangu nañ jaay sen ngor amna ño ñoo ñu ngi fièvre mais dañuy toog garder seen dignité duñ dem mukk ci réseaux sociaux yi wala fenen di ñaan dimbal parce que waru ñu ñaan dimbal parce que dañuy cotiser ana l'argent du contribuable bi si lañ leen war a faj dañoo waroon tabax ay hôpitaux yu baax digne de noo ci xaalis bu ñuy détourné di ko sàcc pour ku feebar ñu mën la cee faj jël la en sharge mais ku feebar amoon moyen da ngay dee est-ce que Marème Faye Sall mën na yóbbu ñëpp faji faji leen xaalis boobu nan lañ koy justifier ñoom réew mu baax doo toog di gërëm nit naan ay may defal te yow kooku moomul xaalis bi donnul ay milliards ci baayam donn ko ci yaayam ñom ñëpp ils sont issus des familles pauvres ñom ñëpp jëkkër jeeg jabar jeeg ñëpp mais fan lañ jëlé xaalis des dafa ñaaw nañ am fulla am fayda ñu jéem changer suñu dëkk bi nañ gëm ay 10000 francs ak 5000 francs ban jëriñ la am lo xif xif xif xif xif bul nangu nit di ñëw di la jox nga carte pendant ce temps moom dem na sàcc sa ay milliards yi milliards mook fameem ay doomam sonnuñ képp ku taq ci moom du sonn te loolu ñu ngi koy jëlee ci sa alal yow sa TVA bi ngay fay sa impôt bi ngay fay sa dédouane sa dédouanement ci la ñuy dund nii ñoom ba pare ñëwaat bi leen ci may ay cinq mille ak ay dix mille francs pour ngeen jël seen carte bi ngeen jaay leen ko bu leen nangu loolu am leen fulla banlieue bii nañ changer Sénégal nañ dimbalante ñu am fulla fayda nañ ko bëgg fekk bëgguñ changement bi changement bi du am il faut ñu soppi suñ jikko yi yàlla nee na dëkk bu nekk buñ bëggee dëkk ba baax il faut comportement yi jikko yi mentalité yi ñu changer ko fekk changé wul dara du changé inna allaha la yuxayiru ma bi xawmin xatta yuxayiru ma bi anfusihim yonent bi ne kama takununa yu wala nu ngeen mel njiit bu mel noonu laa leen di nattoo moom ngeen di am parce que nag suñu yoree jikko yu bon mais ku ñuy fal ci ñun lay génnee il est issu de nous moo tax Macky Sall mel ni mel changeons nos attitudes nañ ko gëm pour defar suñu Sénégal gi Sénégal dafa war a dem am na réew yu bëri Sénégal moo leen rawoon te tey réew yooyu noonu raw nañ Sénégal tey am na réew yoo xam ne Sénégal da leen doon dimbale sax tey dem nañ bay dimbale Sénégal